alhamdulilah alkarim silmilan alastifaad bi furud wa sunan sakartuhu lianna qad saxani li watani bihi nafa ma anfani aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim jërëjëf Sëriñ Tuubaa est-ce que Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa al morom sa di lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraay ñoo ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat Sëriñ Seexul Xadim di baalu àq ñëpp tey baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp taw Sëriñ Tuubaa di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké Bachir yàlla na fi yàgg te ba li mu fas yéenee liggéeyal Serigne Touba lépp mu eggale ko te ñu ànd ko moom te ama ci ngërëmal Serigne ñoo ngi ziar waa Saxum Touba point net di ziar waa Saxum Touba l'officiel ci YouTube bi di ziar kilifa gi Cheikh Moustapha Jaxate xaadimul xaddim di ko ziar bu baax di ko ñaanal ngërëma Sëriñ Touba ci liggéey bi mu nekk di am mbégte lool di dellusiwaat tey ci njàngat mi nga xam ne mooy jataayu murit bi mu indil tey ci talaata ji talaata ji ci weeru février 2021 ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw mu indi nag ay points yu am solo ci mbir yi nga xam ni xewoon na Touba mooy ndaw yooyu fa ñëwoon naan dañuy tawaaf ak itam taxawaayu muxaddimatul xidma ak itam <clears throat> indi ci tolluwaayu jamono waaw ñi nga xam ni daal dañoo génn Sénégal jàngi waaye ñëw taxaw beneen taxawaay boo xam ni bokkut ak lañ fa lañ xamoon waaw kon ñu ngi sant bu baax di waxati am na solo rek waaw am na solo eh, ñi fa ñëwoon nag nga xam ni sëñ Moustapha wax na ci lu am solo muy eh, ndaw yooyu fa ñëwoon sol yu weex ne ne dañuy ñëw tuubaa wër jumaa ji wër bi moom luñ ci jublu tawaaf waaw tawaaf lañ ci jublu muy lu yéeme nag waaw muy lu yéeme ndax ndax itam xam nga tawaaf moom màkka lañ ko xamee dafa lay wére ndax ndax dafa bokk ci ci ci ci at aj gi ngay def waaye kon bu ay nit jékki-jékkee jóg jóge ndakaaru lan moo leen motiver ba ñu ñëw ne dañuy dañ utiliser baatub tawaaf ne dañ koy def ci jumaa ji xam nga boo xoolee jàkk jékki-jékkuñu rek xëy suba ne dañuy ñëw ta déedéet maanaam da nga xam ne lii idée bu ñu bu ñuy maanaam xalaat la boo xam ne yàgg nañ koo xalaat di ko togg mu ñor leen ñu koy waxante di ko togg di ko togg ba gëm ko nag mu jaral leen jóg ñu ñëw ba Touba waaw léegi nag li leen motiver dëgg-dëgg nag moo mat a seet <clears throat> ndax mbir mu lu jar a topp la bu fekkee taqal yoon wi moo leen tax a jóg ñu xam ko bu dee dañoo bëgg rek te xamuñu ñu xam ko bu dee dafa am benn gisin boo xam ni wala déggin boo xam ne dañ koo dégge te déggu déggin boobu juunoo ak li sëriñ bi dégle ñu xam ko ndax yooyu rek moo ci mën a nekk bu fekkee lu mel ni taqal yoon wi moo ci am war nañoo bàyyi xel ne day boo toppee waxtaani sëñ Moustapha Jaxate yi sax da xam ni bari na fi xew-xew yu fi am yoo xam ne jublu yi mooy taqal yoonu murit ndax loo xam ne sëriñ Tuubaa wootewu ko ay doomam yi fi nekkoon wóotawuñ ko seex yi mu seexal wóotawuñ ko ay rakkam kilifa yëpp yoonu murit mosoo ko ci dégg ñu dox ba jamono ñu koy bëgg a indi danga xool ci màggal gi li fi xewoon ak soxna soosu yéeg ba ci kaw sooroor bi di fa déglu musique yu mel noonu day image yoo xam ne ndax Touba ni ko Cheikh Moustapha Diakhaté di war a dëkk bu exceptionnel la maanaam tubaa bokkut ak yeneen bërëb kon lu fa xew rek ci lu xaw a ñagas day wër àdduna bi yëpp te noonu ñi da nga koy exploité xoolal ñii seen réer gi waaw loolu lañ koy bëgg a tudde kon yooyu yëpp lu mat a xam la lu mat a topp la wax dëgg yàlla bu fekkee nag eh, dañoo bëgg te xamuñu boo bëggee moom li nga war a def mooy xam lu ji suñu boroom sax balaa nga koy jaamu danga koy xam ba noppi xam ngi moom weesuwul lépp loo xam ne war na la sa digganteeg la nga xam ni moom nga bëgg bu dee sëriñ bi dangaa bëgg sëriñ tubaa ñëw jébbalu war ngaa xam charti ki jébbalu lan la ak taalibe bi nan la war a doxe kon lu yellul ci yoon wi uuteeg li sëriñ bi bëgg nga xam ko ba doo ko jëfe bu fekkee sëriñ bee tax ndax li ñu mënta comprendre mooy ne man sëriñ tubaa laa bëgg ci moom laa yaakaar àdduna ak àlaaxira ba noppi yow lépp looy jëf doo xool ndax Serigne Touba lii dëppoo na ak sunna wala dëppoowut ak sunna ndax Serigne Touba foofu la tegoon tànkam kon réer gi dafa bari waaw bëgg moom bu àndee ak réer rek day metti moo tax saa yu ñu jógee rek def loo xam ni waruñu koo def bu dee ci interprétation comme ni ma ko waxee bu dee dafa am dégg yu dégg yoo xam ni wuute na ak li am dëgg-dëgg dama ciy joxe misaal rek ci xaside yi. may yi ci Serigne Touba wax ak yooyu yëpp lu mel ni Matlabul Fawzayni wa xajjatan liman bi duxfin irtada wa jatan ala muxaalifin xada xam nga bayit bi mën nañ koo dégg rek ni ah moom de kon mënees naa euh, tawaaf ki te wóor na ma ne ci lañ sukkandiku waaw lu mel nii boo ko déggee sëñ bi te sa dégg soriwut sa xam-xam soriwut sa dégg arab soriwut sa dégg tuur Sëriñ Tuubaa ba xam fa muy waxe ak na muy waxe soriwul waa léegi doo dem yoon wi moom lu ne la ñàkk ba mu des boroomi xam-xam nga dem leerlu lii ba xam fi ngay teg sa tànk bu baax ak lu tax wax ci sëriñ bi wax ko waaw wajal kitaab kitaabatiya min zal yow mi fawqa salaatan xubilat wasaw mi waaw day tax doo woor wala doo julli sëriñ Tuubaa ndax dalaan bañ a woor di moom mi ko bind ay njabootam ndax dañ daan bañ a woor di bañ a julli di def yi waadaat yi déedéet kon nit dafa war a xellu nit dafa Sëriñ Tuubaa lépp lu baax lu yàlla di digale muy ak jaamu yàlla yàlla da koo defal ci ay mbir yoo xam ni boo ko defee am yool yooyu waaye tekkiwul ni nit ki nag danga nga naan kupp foofu jaamu yàlla déedéet ndigal suñ borom la yàgg sa diggante ak sa borom la loolu te Sëriñ Tuubaa di wax na ni def lu la neex ba xëy jubal ko fi dugg àjjana man àjjana jooju awma ko ku xam fa mu nekk nga wuti ko nekk ci la leen neex ba xëy suba dugg àjjana loolu kenn mësu ko dégg kon bu ñu nax suñ bopp waaw am na yoo xam ne nax sa boppal ak bëgg siiw te sëriñ tubaa kenn mënu koo taqal ndax sëriñ tubaa dafa wax ak mag ñi mag ñi dégg di nettali mu jëf nit ñi gis jëf yaa ngi fi mu bind bàyyi fi waaw kon sëriñ Touba moom képp ku jóg ngir bëgg a taxal yoonu mi bis bu set loo def rek am lu koy dindi lu sori loo xam ne Serigne Touba ci boppam moo ko waajal boppam te itam doy na ci rek da nga ne da ngay ñëw da ngay tawaaf waa Serigne fàllu Mbacke mi nga xam ni moo ajalil moo aji woon ajalil Serigne Touba ànd ak ñoom sëñ Mbacke bu soog ñam àndal ñëpp kàngam yooyu kon la lu tax yemuñu Tuubaa ñoom doyloo rek jumaa ja tawaa foofu def li ñuy def maanaam xel dafa baax ci mbir yi te yoonu murit kenn ko ëpp ko ay alaaji waaw suñ alaaji baara ko ne dégg na waaw kilifa yu bari nga xam ni sëñ Sidi Muxtaar mii rek ñaata nit la yóbbu ñu aji màkka bi mu fi toogee nekk Sëriñ Tuubaa ak balaa mu ko balaa mu doon nekk Sëriñ Tuubaa ña par at ñaata euh, taalibe murit ñooy dem aji màkka alaaji fàll yu bari nañ lool waaye lii yëpp nga bëgg ne ko fa kupp nag ñëw naan da ngay ah, tawaaf si ba bëgg a wax loo xam ne noonu yi dañ koy exploité te tega ko ci réer rek ndax taalibe bu nekk loo ñàkk-ñàkk xam-xam waaye boo ne Serigne Touba laa bëgg Serigne Touba bind lu bari lu dul jeex ci wàllu fiq wàllu imaan wàllu lépp du jeex nga war cee mën a gëstu ba xam fi ngay teg sa tànk waaye déedéet da ngay interpréter mbir yoo xam ni yow maanaam sa njariñu bopp topp sa bakkan moo tax nga koy def waaye wóor na li nga wax du dëgg bi ci des mooy sëñ Moustapha indi lu am solo muy responsabilité jëwriñ yi wala seen ay sëriñ ndax itam foofu euh, sëriñ bi sàmm la ki jébbalu ci yow mooy ki ngay war a sàmm ab sàmm nag yaakaar naa ni waroo fër bët wala sa bët du tege ci ñi ngay sàmm. ndax yu mel nii mën na cee am ndax yàlla képp a tax ñu ànd kon bu yàlla taxee ñu ànd nit ki danga koy teg ci yoonu yàlla di ko digal li yàlla bëgg li yàlla tere nga koy tere bu fekkee dangay gis ni ay ay jëwriñ lañ xam nga yoon wi fi mu toll nii daf cee bari ñoo xam ne ay jëwriñ lañ xaw a gën a yeewu tuuti ñu ñu jiite maanaam ñi ñu jiite seen seen àll wa sori wala li ñu xam bariwul ñu leen di gëmloo yoo xam ni mooy bay di ma wax sànq rek di leen gëmloo yoo xam ni sëñ bi yombalal leen mbir yi ci Sëriñ Tuubaa ba nga xam ni dañuy gëm yenn yu baree bari bari bu ko defee kooka bu mbooloo mi tàmbalee bari rek boppam la leen di woon boppam la am nañ ci ñu bari ñoo xam ne sax da leen di jaral ñuy def ay xarfa fuufa yoo xam ni sëñ bi di noot nit ñeeg yu demee noonu au lieu nga won leen Serigne Touba waaye sa bopp nga leen di won yow won gi sa bopp mooy di leen wax yoo xam ni xam xam nga ni yow sa bopp rek moo tax ngay ut daraja waaye li Serigne Touba bëgg dëgg-dëgg doo ko wax li mu digle doo ko wax li mu tere dëgg-dëgg doo ko wax li mu digle ci jaamu yàlla doo ko wax danga leen a war a digal li sëriñ bi bëgg te bañ leen digal li nga bëgg yow mooy rek taalibe da nga koy digal te doo ko dugal. danga koy digal te doo ko dugal digal bi mooy nga koy digal li sëriñ bi bëgg di ko tere li sëriñ bi bëggul bañ leen a won sa sa bopp bañ leen a dugal nag mooy wax leen li la neex yow wala li leen neex ñoom nga xam ni buñ ko déggee seen xol bi day sedd te bokkut ak li Serigne Touba bëgg day uuteeg lool ak ndigalu Serigne Touba te jëwriñ yu bari fi mu toll nii boo seetloo def jàngat da ngay xam ni koom lañu def sëriñ bi maanaam alal la ute sëriñ bi ak daraja alal ak daraja la ñuy ute sëriñ bi ndax xam nañu sëriñ waa moom zaa bi laa dara xéewal yi bari na waaw ku ci àdduna ñor rek sëriñ bi bàyyi la ak àdduna waaye bu ëllëgee bu ko xool ba bëti bëgg naa ci ci ci li nga yor foofu ëllëg wax na ko da ngay gis ku jàng ñaari xasida rek sëñ bi gént ay gént rek tàmbare di ko interpréter bu ko defee nag mbooloo yi ko wër ñàkk yeewu wala wala wala seen àlluwa soriwul ñu gëm ko topp ko loolu lu mu koy jural day dem ba naagu nag waaw fi mu toll nii kilifa yi ko jiite sax dootu leen nangoo def kilifa waaw ndax taalibe itam da ngay dégg ndigal bu fekkee ki la jiite yow jàng nga ñaari xasida tàmbalee gënt rek foog ni yaa ko gën a eh, yay wala yaa ko raw wala amatul maqaama sax nekk sa sëriñ xam nga loolu problème lay daal doon te loolu dafa fës fi mu toll nii ci jamono te sëriñ tu sëriñ Tuubaa Cheikh Abdul Ahad waxoon ni lii rogalaat ci ndab li ba xéewal yi wër fu ne ku nekk jot ci defe ne dara nga ci fi toll nii te kenn du ci dara sëriñ Tuubaa képp a liggéey lépp ba muy taxaw di ñaan amul ku nekk ci ginnaaw ginnaawam naan amin xolal li jamono ji dafa feeñ fi mu toll nii yëf yi daal lii rogalaat moom ku mu dem ba laal rek nga lab ci xéewal yi defe ne daal yaa yow yaa demoon julli ca bureau ba ca ndar wala yaa julli woon ci géej gi waaw wala ca Gabon yaa fa nekkoon di daj coono yi te kenn du ci dara nañu delloosiwaat suñu bopp nañu nekkaat ay taaliba te yam fi war a yem ndax sëriñ Serigne waa waxoon na ne jam maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon na ne jamono ji bu ñëwee liy jafe mooy ak taaliba digal naa leen ngeen mooy ci ak taaliba te roof ko ca bëy bëñ ba tudd roog seen ba jongati di ko bañu a yóbbu ku sàggan fi mu toll nii sa taaliba dem waaye da xool sëñ bi bu fekkee loolu la mag ñi àndoon ak Serigne Touba nag nga xam ne maraaxi benn lañ ciy jàng sëñ bi leer gi dugg leen ba ñuy daw ci kaw sàkket yi di fekk satala yoo xam ne day bax ñu koy naan waaye ndax mag ñooñu dañoo naag woon dañu ne woon dootuñ jaamu yàlla te ñoo la dàq jaamu yàlla dàq laa liggéey fop dàq laa jàng xasida waaye tey moom sëñ bi nangu doo duñu nangoo jaamu yàlla du ñu nangoo toggoo benn coono ngir yàlla waaye dañu yombal mbir yi ba nga xam ni yéeme na kon nañ seetaat suñ bopp sëñ Moustapha wax ni tam ñii bu ñu xellu woon du ñu def loolu sax ndax dañoo risqué seen vie muy lu dëggu ndax nan ngay xalaate yow ñëw tuubaa mu wóor na ne am na organisation bu fa nekk di aar jumaa jeeg armeel yeeg lu yellul ci tuubaa nga ñëw bin bëgg faa def loo xam ni kenn xamu ko ci yoonu mu defe ne dinañ la bàyyi nga defe ko li tax ñu doon jaay seen dund mooy tey Moukhaddamatoul Khidma am na nuñ doon doxalee bu ñu tegul woon xel tey ay néew lañ fay jëlee tey la ñuy wax waaye xel mu sell mu ñu doxal Moukhaddamatoul Khidma moo tax ñu neutraliser leen ndax bu fekkoon dégluwuñu leen rek xam maslaa ca début ba. waa Touba bu ñu jàpp ne Moukhaddamatoul ma moom nga gis nombre de personnes boobu rek waa Touba ñëpp ñu fa wër dinañ ñëw ci jumaa ji te dinañ ko jëflanteeg nag ci su boobaa ay néew ay néew fay jëg ay néew dong lañ fay jëlee kon dañoo xaru woon woon bu buñ ko defee ba noppi nag bu ñu demee police fi mu police gañ nekk buñ loo xam ne dañoo xaru woon waaw te li ci gën a doy waar mooy ñàkk war ma gi sëñ bi yow bu dee taalibe nga gëm sëñ Tuubaa à zéro mètre fu ku fi mu tëdd sëñ bi. seen fii euh, jumaa ji wër ko njabootam tëdd fi maam Cheikh Ibrahima Fall ci armel ya sëriñ baar nga ñëw ba dig-digal boobu sëñ bi di fa ñàkk war ma di fa xeex di forcer di xeex waaw lii est-ce que ak taalibe li lii est-ce que sëriñ bi dëgg-dëgg moo tax ñu def lii déedéet lii moom boo ko seetee am na lu lal suuf te war nañ koo gëstu ba xam ko lu tax mu jaral leen ko lu tax mu jaral leen ko wóor leen nii mën nañ cee ñàkk seen basan bakkan lu tax mu jaral leen ko pare woon yoon sa yor seen ay photo lépp ñor ko kon lu mat sëkk la ni waa mu xaddimata xidma jëflante ak ñoom lu am solo ndax nit ki boo waxee moom bu bañ a dégg jaale di koy baa ji koy baadoolo li sëñ Moustapha wax rek waaw yetu baadoolo moom fu nekk war na ko am bu baadoolo ñëwee nga duma ko ci bu baax a baax mu xam fi muy taxaw kon lu yéemee ngi nii ñu war ko bàyyi xel bi ci des sëñ Moustapha indil ñu ko muy la am solo euh, ci jamono ji nga xam ni ñi nga xam ni dañoo jàng tubaab ñu leen di woowee soit ay intellectuel wala ñi jàng arab euh, moom mu firee ko ne ay ay mbuus yu ñuul la ñu sol ci yaxi tubaab wala mbuus yu ñuul ñu sol ci yaxi naar lu wér la ndax dem jàng ci tubaab yi wala nga jàng ci arab yi ñëw foog ni sëñ bi complexe ba nga xam ni moom daal yéema ne kenn mësu koo gis waaw fi mu toll nii boo boo solul colug tubaab sax da ngay foog ni nekk ko boo waxut tubaab di wan ay r wala yenn yi doo doo bëgg bu dee araab yi noonu lu ne nga ne nga bi nga araamal ko ci nit ñi lu ne nga ne baaxul te yow fi nga juddoo yaroo fi ba génn dem jàngi ñu nga judd fi ñu tudd la toqantal la jàngal la alxuraanu karim jàngal la xam-xam nga soog a génn dem waa fi nga jóge bu ñu baaxutoon lii danañ ko mën te war nañu xellu bu baax doole doole yoonu murit lan la décomplexé doole doole ji yoonu murit yor ku ne xam na ni ñàkk complexé moo ko waral ndax tey exemple bi ngay jël mooy Hizbut seen daayira bañ koy sos biir université temps yooyu affaire intellectuelle la ñu gëm waaye xoolal suñu ko yam ci de dañoo changer seen coliñ sol ay baylaat nga xam ne ku leen gis du nattable kii fi mu bokk sol ay maxtuma boo leen gisee xam ne ñii ay murit lañ gën laa jàng gën laa peeg li ngay jàng waaye loolu lépp nag ñu dëxante ak taalibe du du ñu dem fenn ba décomplexé ñeneen ñi kay ñoo leen di gis di yéemu ci ñoom waaye ñoom du ñu yéem ci ne ndax am nañ du leen doy muy Serigne Touba Cheikhul Khadim Dakar bi fa bawol bawol yi di ñëw ñàkk a complexe di fa for ay butéel ci mbedd dakaar yi di jaay ba nekk fa ay milliardaire ba nekk fa ay milliardaire bu dee Europe gi gis nga daayira yi murid bi ñu fi tasee Europe Amérique asi fu ne bu ñu ñëwee ñàkk a complexe mooy dinañ fexe ba sos seen daayira nekk ci seen ay saal di luye seen ay saal di def seeni màggal di sol yëre yi Baay Faal ba tubaab yi yëpp di laaj lii lan la ak origine yeeg yooyu lii boo complexe doo ko def kon Serigne Touba nim ñu jàngale jaamu yàlla ak nangoo liggéey lañu jàngal nit ki warta complexé surtout nga yor li nga xam ni mooy mooy urus urus bi ne ko sëñ Sam waxee woon rek da nga yor urus sëñ bi ku yor përëm ñëw di la ko xaymat ba ba nga bàyyi urus bi yow jël përëm bi mu daw dem yoonam te loolu darul yoonu murit waaye lii yëpp nag day tax yoonu murit war a fara fagaruwaat bu baax a baax a baax a baax ni ko sëñ Moustapha waxee euh, Muxaddamatul Xidma waral war nañ leen a jool ak cant bu baax a baax a baax waaye li ma ci jàngat rek mooy war nañ leen a dooleel itam bu baax ndax sëñ sa wax na ko ku ñëw ci ñoom ngay njëkk a yam kon war nañ leen a utal ay moyen de défense ak de d'attaque loolu nag la bërëb bu nekk la mu laaj rek dañ ciy waxtaan ba ba xam yan yan mbir lañuy lañuy la ñuy jëfandikoo ginnaaw ñoo jumaa ji yor armeel ya te armeel ya gis nañ liggéey bu rafet bi ñuy def borom ñaari tur yi ñu fay bëgg di denc ñu leen di démasqué ak yooyu yëpp gis nañ ko waaw ni ko sëñ Moustapha waxete caméra yi nga xam ne de surveillance la yi nekk ci ci ci ci wër jumaa ji ak yooyu ñoom waru leen ëmp luy ñëw lu sori war nañ koo teel a gis maanaam li wër jumaa ji ñu am fa li ñuy tuddee ay check point ñu jox leen équiper leen waaw ay walkie-talkie yu baax matériel bu baax loolu mën na yoonu murit mën na ko ndax itam képp koo xam ni ku jóg balaa nga egsi ci ñoom ngay dal war nañoo dëgër dëgër gu mat sëkk nag waaw ñu dooleel leen bu baax a baax a baax a baax ndax seen liggéey wax dëgg yàlla macha allah rafet na ndax tey lii bu fekkoon da da doxaluñ ci xel ak taxawaay bu mat sëkk leneen mooy am kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen ñaanal ngërëmal Serigne Touba di ñu ko di ko ñaanal mbooy ta mboolem taalibe yëpp barke Cheikhul Khadim ñoo ngi amati mbégte bu baax di santaat bu baax a baax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني